ci nuyub lislaam bu tedd boobu di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñuy dikkaat ak yéen ni ñu ko baaxoo ànde ci ay bis bu ne di jàngalante ak yéen ci téereb sëriñ bi radiallahu anhu bi mu tuddee nahju xadaa'il xaaj te ni ñu ko baaxoo waxe rek lépp sëriñ bi tënk ci ay teggiin ak doxalin wu jaar yoon wi nga xam ne moom la nit ki di war a jëflante ak ñi nga xam ne ñoom la ko suñu borom bi subhaanahu wa booleel te ñu séddali ko ci ñetti xaaj muy ñoo xam ne dañ koo féete ak mag ak ñoo xam ne da féete ak mag ak ñoo xam ne ak maasam lañ ku ci ne am teggiin yoo xam ne moom nga war a doxla doxalante doxale sa diggante ak moom di ko jëflante ak moom loolu lépp lu ci bëree bari sëriñ bi radiyallahu anhu leeralal noonu ko ci téere bii ba jot nañ cee jàngat ay bindu yu xaw a takku ci bind yooyu rek ci la ñuy sofee suñu waxtaanu tey ba tey di continuer fi nga xam ne fi lañ yemoon ci bind bi weesu nga xam ne ñi ngi taxawoon fi nga xam ne sëriñ bi radiallahu anhu ñu ngi ci soññee ci euh, nit ki su fekkee ne dafa ànd ak aw nit di tukki muy fexey di leen sàmmal seeni bagage di leen ko gàddul waaye muy fexey bu fekkee ne ñi mu àndal di tukki dañoo yor ay waruwaay mu leen koy sàmmal waaye it muy jëflante ak ñoom jëflante bu rafet rafet te it fu mu toll muy liggéey doon liggéeykatu ñépp mbooloo ma mu nekkal rek na doon seenub liggéeykat waaye na doon seen jëwriñ joo xam ne lépp lu ñuy liggéey rek moom moo cay taxaw ngir defal leen ko ngir ne dañuy wax ne xayrul xawmi xaadimuhum ki nga xam ne moo gën ci nit ñi de mooy ki nga xam ne moo toggoo di leen liggéeyal fu ñu toll moom mooy toggoo coono ya ngir di leen euh, euh, gërëmal waaye ngir di dab seen bànneex kon ci foofu lañu taxawoon euh, ba sëriñ bi radiyallahu anhu doon wax ne wala yablughul majdu illa bil kaddi kama xiil tedd nga day kenn du ko jot ci lu dut ab coona maanaam tedd nga di képp koo xam ne moo moom nga bëgg la nga xam ne moo la koy may moo di góor góorgóorlu waaye la nga xam ne moo la koy may moo di ab coona ngay jëkk a toggoo doog caa jot kama xiila ni ki mu ko waxe bi xadril kaddi ci kemub coona taksibu ca ngay fàggoo almaali ak kawe waman talaba képp ku sàkku alxulaa ak kawe sahira dana fokk allayaali yi guddi ya nee na nit ki day kem coono bi nga xam ne moom la sonn rek ki lay fàggoo ak kawe maanaam ci lay fàggoo ay martaba ki lay fàggoo euh, maanaam ak yëkkatiku te képp koo xam ne suñ borom dafa dogal nga bëgg a yëkkatiku euh, bëgg am ab cër fa suñu borom bi subhaanahu wa sëriñ bi nee na faw ngay fokk faw ngay fokk mooy lan faw ngay euh, dàqonte ak nelawi guddi maanaam di bañ a nelaw guddi gi ba mu jeex di jug di dundal guddi yi di jaamu yàlla ngir lan ngir mën a am ak kawe waaye ngir mën a amub cër suñu borom bi subhanahu wa taala kon coona mooy li nga xam ne mooy fàggul borom bi ay may waaye mooy li nga xam ne mooy fàggul boroom ak kawe mooy li nga xam ne mooy tax nit ki mën a jege suñu boroom bi subhaanahu wa taala mu ne taruumul majda dana sàkku tedd nga summatanaamu topp muy nelaw laylan guddi laxat at maata xemmem loo nga nafsaka sa bakkan fil cala jomb ne na nit ki de saa boo xamee ne ma ngay sàkku tedd nga tey guddi gu day fanaanoo nelaw ba ba set ba jant bi teg ko ko mu doog a yeewu ne képp koo xam ne noonu ngay doxale day di xemmem tedd nga di xemmeñ ak yëkkatiku di xemmem ab cër ci suñu boroom na nga xam ne xemmem nal nga sa bàkkan loo xam ne lu ko jomb la ndax la tax ñuy am lële yow jaaroo foofa jaaroo ca yoon woowa kon lii Euh, du doo ko doo ko am muy lan muy sonnal sa xemmem loo sa bakkan loo xam ne mënu caa egg mënu ko am ndax lay tax nit ki am ko euh, jaaroo ca te it jëm ca mu ne waya muruka dana la digal bi an laa tab xala ci nga bañ a nay bi shay in ci dara mina dunya ci loo xam ne dafa tukkee fii ci àdduna fa innal baxiila naka aji nay de baidun aji sori la minallaahi ca suñu borom bi subhaanahu wa taala baidun aji sori la minannaasi ca nit ña baidun aji sori la minal jannati ca aljana xaribun aji jege la minannaari jëm sawara wa bi aksihi ci ab safaanam assaxiyu mooy tab kon nee dana la digal ngay bañ a nay ngay bañ a nay ci lépp loo xam ne mooy poño xiitam àdduna mii nga bañ cee nay moo xam alal la moo xam loo war a dimbalee nit ñi la yooyu yëpp loo ci man nga def ko sa kem kàttan waaye nanga nga ba bul nay ngir nay googu kat mooy li nga xam ne daf lay soril sa borom soril la nit ñi waaye soril la ajjana waaye bu la sorilee ajjana ba pare dalay jegenal sawara Euh, su fekkee ne nag digal na la nga bañ a nay kon lu mu la digal mooy dalay digal ngay jëfe safaan bu mooy lan mooy ngay tabe ngir tab googu ngay tabe ci ngay jege suñu boroom ci ngay jege nit ñi waaye tab googu mën naa dem ba yóbbe la euh, aljana kon nit ñi nay fexey ba sori nay bu baax a baax waaye nay fexey ba tabe waxat xaala wax na ashairu waykat ba iza kaanatil amwaalu su fekkee ne alal ya day jamuha ak booleem li tarki ñeel bàyyi fama baalu matruki ana lan mooy solos lu ñuy bàyyi almar u cem si yab xalu di naye bihi ca moom ne e, su fekkee ne alal ji nga xam ne moom la nit ki di dajale fii ci àdduna day dañ koy dajale rek ngir bàyyi ko fii kon nee na ana loolu lu ci nit ki di xëccoo wala ana loolu la lan la ci nit ki di dajale ak a nay ngir bañ koo joxe ci yoonu yàlla waaye ngir bañ cee dimbali nit ñi nga xam ne ñoo ko soxloo waaye ngir bañ cee dimbali jaamu yàlla yi nga xam ne aajo woonan ko nee su fekkee ne alal loolu donc tax ñu koy dajale day dajale ko rek ngir soo faatoo wàcc ko fi kon jàpp naa ye amul solo ñu koy dajale kon foofu nit ki war na fee dégg ne su ma dajalee alal ba am ko day wala ma am loo xam ne dafa ëpp sama samay aajo day kon suñu borom bi subhaanahu wa taala na gàll na ci sama loos bu fekkee ne daa mat lu ñu war a génne azaka ñu war koo génne waaye su fekkee ne matul lu ñu war a génne azaka suñu borom euh, def na ma war cee mën a génne loo xam ne ab sarax lay doon di ko jox ñi nga xam ne ñoo ko yelloo kon nit ki war naa fexe ba alal ji muy dajale ci àdduna bu mu ko dajale rek ngir di ko wàññ waaye bu mu ko dajale rek ngir bëgg am naa alal waaye su fekkee ne alal da ko yore bul ko dajale noonu rek waaye deel ci del di ci dimbali ñi nga xam ne ñoom la suñu borom bi subhanahu wa taala dogal nga féete leen kaw waaye ñoom la suñu boroom bi subhanahu wa dogal seen loxo jotul seen ginnaaw ba ñu mënal seen bopp lu bëree bëri mu ne wa akrimil adyaafa na ngay teral gan ña bi tarxi bi ci ak yaatal wabil qiraa ak ci bernde wabil bishri ak ci mbég wa taqrib ak ak ak jegeñu nee na na ngay teral gan ña maanaam soo amee ay gan nanga leen teral waaye la lan nga leen terale nee na la leen jëkka terale mooy na nga leen yaatal na nga leen yaatal gan buy wàcc da koy yaatal won ko ne kër gi day sa kër la won ko ne fi nga wàcc ak fa nga jóge benn la yaatal ko ba mana mën a wàcc waaye yaatal ko ba mu mën a dal boo ko yaatalee ba mu dal nag nga bernde ko bernde ko ci lépp loo xam ne sa wërsëg mate na ko waaye lépp loo xam ne jàpp nga ne boo ko ci def boo ko defee boo ko defalee mu euh, bég ca waaye boo ko defalee xolam sedd ca te man ko nga defal ko ko te it nga bég ci ñëw gi nga xam ne moom la la seet si waaye nga koy jege di waxtaan ak moom ngir loolu mooy tax am xelam dal loolu mooy tax ngan gi nga xam ne moom la ñëw gane si la ko euh, mu am ci loo xam ne euh, moo ci sedd ab xolam ngir ne gan euh, li nga xam ne moom lañ koy téye rek mooy yaatal ko waaye li nga xam ne moom lañ koy téye mooy di bég ci kanamam waaye li nga xam ne moom lañ koy téye mooy di ko berndeel ak di ko jege di waxtaan ak moom ngir mu bañ a yëg ak ak wéetaay waaye ngir mu bañ a yëg ak ak beddiku walla yu demee noonu mu ne laa yastadiq bu mu xat li day fi ñeel gan min ci yow alkalkalu xol ba ne na sab xol de bu mu xatal gan mukk maanaam bul won sa kanam gan mu kanam gi leer nañ waaye sa xol ba day euh, ma ngay xañ-xañi ngir lan ngir gan gi nga xam ne moo ci wàcc ngir ne euh, moom day dafa mënta supporter euh, gan wala dafa mënta euh, yaatal nit wala yu demee noonu yooyu na nga fexey ba not ci sa xol bu baax a baax ndax ne na fa innahu naka moom gan nga de yarxalu aji laxas la amma qaribin ci lu jege nee na gan day moom ak wàccam yàggut maanaam ak gana ak ganeem ak ganeem yàggut ngir ne ay bis yu niiw rek la fay def su ko defee mu dellu ci ay yitteem kon kooku mën nañ koo yaatal waaye mën nañ koo berndeel mën nañ koo bégal ngir ne la nga xam ne moom la fay def laxasaat dem fa nga xam ne fa la jóge woon yàggut dara kon nit ki war naa mën a muñ loolu kon gan noonu lañ koy téye mooy yaatal ko waaye berndeel ko waaye di békki kanamam te bañ sab xol di euh, wane genn euh, xat wala wone genn ñàkk jublu goo xam ne jublu nga ko li nga xam ne mooy gan goo xam ne dafa wàcc ci yow mu ne wa fi xadiisil Mustafa nekk na ci xadiisi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, yal na yàlla dolli xiiwal te musal ko sàllaa yal dolli xiiwal al ilahu buur ba alayhi ci moom bil aali ak ci ñoñom wa kulli man ak képp ka nga xam ne talaahu topp nga ko nee na xadiis yonente bi alayhi nekk na ca yonente bi saa sallam di wax ne man kaana képp koo xam ne nekk na yuminu di gëm waxaala wax na alxaa'ilu waykat ba wa dayfa gan akrimhu nang ko teral bi baxril kaamili ci baxru kaamil nee na nekk na ci xadis yonente bi saa sallam xadis ba tàmbalee man kaana yumin xadis boobu ci baat yooyu ñu tudd moom la tàmbalee te dina ko andi léegi ci saraat bi ki nga xam ne mooy waykat ba tamit wax na ne wa day fa akrim bu mi ngi ko të tëgge ci baxarul kaamil baxarul kaamil ci baxar yi ñuy tëggee ab ay way la bokk kon shaayir ba loolee mu doon wax di ko dénkaane ci wadday fa akrimhu ci baxar boobu la ko euh, tëgge mu ne yaani dana jublu annahu naka moom ya'muru ko dana digal bi bay dayfi ci teral gan wa tarxiib ak yaatal ko bihi ca moom wa bi an la tastadiqa ak ki ngay bañ a xatal bihi moom fa innahu naka moom murtaxilun aji laxas la laa mu xaalata déet sikk nee mi ngi lay digal day ngay teral sa gan boo amee gan nee na mi ngi lay digal nga koy teral nan nga koy terale nee na nanga ko yaatal la ca ëpp solo mooy nanga ko yaatal waaye bul ko xatal ndax moom kat amut sikk ci ne euh, benn fan ñaari fan ñett euh, mu laxas dellu fa nga xam ne fa la jóge woon kon euh, jamono ji nga xam ne moom lay def ci yow nanga nga ba di ko yaatal waaye nanga nga ba di ko euh, teral waxad xaala euh, wax na salla yàlla na doole xéewal allahu yàlla taala kawe na ci moom wa sallama te mu dolli ko musal man kaana ku nekk yu yuminu di gëm billahi ca yàlla wal yawmil axiri ak ca bis bu mujj ba muy bis penc fal yukrim nay taral dayfahu ganam ne na yonente bi saa sallam yal na ko suñu borom bi subhanahu wa taala dolli xéewal ak i taw feex na wax na ne képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm bis penc ne na na ngay teral sa gan kon teral gan loolu lu yonente bi saa sallam digle la kon soo amee gan na koy teral bu baax a baax ngir nga jëfee ndigalal yonente bi salallahu alayhi wa waxaala wax na ashairu woykat ba min baxril kaamili ci baxru kaamil mu wax ne wa dayfa gan ga dey akrimhu nang ko teral fa inna mabitahu naka fanaanam ga de xaqun aji yey la wala taku bul nekk lonatan di aji móolu li nuzuli ñeel wàccu gan ne na gan dey nang ko teral saa bu ñëwee ci yow wàcc ci yow dey euh, na nga ko teral te xam ne ak fanaanande lu yell la maanaam bu fanaanee ci yow lu yell la waaye it bu gan wàcc ci yow mukk nga koy muulu waaye bu gan wàcc ci yow mukk nga koy xool bëtub xeebeel wala nga koy xool bëtub sis nee na loolu day bul ko def mukk nee na gan de saa bu wàccee ci yow na ko teral waaye na nga xam ne bu fanaanee ci yow tamit lum war a def la ngir ne gan am na àqi fanaan ci nit Euh, am na àqi euh, ñu ganale ko tamit ngir ne yonente bi saa sallam moom moo ko digle mu ne waalam xamal bi anna dayfa naka gan muxbirun aji xibaar la ahlihi ñoñom bi mabitihi ca fanaanam ga abadan ba faw wa in lam yusali doonte laajeefu ko ne na nga xam ne gan day euh, daanaka saa bu ñëwee ci yow gane Euh, bu fanaanee ba xëy laxas dellu fa nga xam ne fa la jóge woon day dana xibaar waa këram la nga xam ne moom la moom la fa fekk dana xibaar waa këram la nga xam ne moom noonu lañ ko ganalee bu fekkee ne yaatal nañ ko dina leen ko xibaar bu fekkee ne dañ koo xatal dina leen ko xibaar doonte ne xibaaruñ ko loolu aada junu miin la ci gan ngir ne su demee dana am yóbbal bu mu yóbbul seen waa kër te yóbbal booba dara ëpp ca solo ngir ne dina leen wax nanga xam ne noonu lañ ko teeroo waaye na xam ne noonu lañ ko doon ganale na nga xam ne noonu lañ ko doon yaatale bu fekkee dañ ko doon xatali dana wax na xam ne noonu lañ ko doon xatale bu fekkee ne dafa gis lenn loo xam ne lu ko neexut la wala dafa gis ci ñi nga xam ne ñooy gone yi ak yareedu ko wala yooyu yëpp gan saabu demee yooyu yëpp dana ko xibaar moo tax nit ki war nay bàyyi xel saa bu amee gan li nga xam ne moom lay jëflante ak moom ba ci ñi nga xam ne ñoom la dëkkal ba ci euh, gone yi nga xam ne ñoom la war a yar ñoom ñëpp war naa am lu mu jëflanteek ñoom ba gan nga saa bu demee buy nettali ña nga xam ne ñooy waa këram nettali ba doon loo xam ne lu rafet la euh, lu lu lu xel mën a euh, xelaat la waaye lu am nopp mën a dégg lay doon mu ne walaaqihi na nga dajeek moom na nga dajeeg gan ga maanaam soo gisee sa gan buy ñëw di nanga nga dajeeg moom bil bashashati ca benn xar kanam maanaam na nga leeral sa xar kanam euh, ree euh, mel ni ku bég ci ñëw gi nga xam ne moom la ñëw wa talaaxatil ak ci leeru xar kanam maanaam na nga leeral sa xar kanam bam ñime la xam ne yow mii de ñëw gi nga ñëw ci moom kontaan euh, ñëw gim ñëw ci yow kontaan nga ci waaye ganesi gi nga xam ne moom la la euh, ganesi day euh, bég nga ci ngir ne ci sa kanam rek bu ko xoolee ci la koy xame fa xadd xiila euh, wax na innahuma naka ñoom ñaar muy belli xarkanam ak leeralu xarkanam bi xayrun moo gën minal xiraa ci bernde kon nit ki la nga koy berndeele mooy yaatal ko leeral sa xarkanam ci kanamam loolu mooy li nga xam ne moo gën a ëpp solo ci Euh, ak ganale kon nañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax kon dañuy tuub te jéggulu di wàcc foofu suñ kàddu di wax ni in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa rabbil arshil azim wassalaamu aleykum wa rahmatullah ala sahabati wa saadati kullihim ridwanu rabbil aradi was samawati على الصحابة والسادات كلهم رضوان رب الأراضي والسماوات sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey